ni leen ko waxee ah yaayu Ndiogou li ngeen jàkkaarlool nii maire Gagne Siry ah, ñuy maye doomam tey yaay booy tey sa doom la ñuy maye yan témoignage ngay def ci Ndiogou. bismilaahi xanaa julli. ci yonent gi sallallahu alayhi a ah, naa sant yàlla rek. ndeysaan. waaw sant yàlla rek ma sant yàlla ba mu. amatuma lu may wax. yàlla daal desala ma dara. ndeysaan. ndax bala yàlla dénk ay doom yu jigéen. waaw. ñu suturaal la. Mm-hmm. kenn sonnalu ma. mosuma mm-hmm. taxaw ci di xaar kenn. ndeysaan kenn jaaxaluma ci sama ñëpp maa ngi koy wax waa koñ yaa ngi mbokk yaa ngi ni famille baa ngi ni toog dañu maa sutural ba nga xam ne miraas moo ma tàggal ak ñoom ñu dem luwe sumbulu luwe bu jële ay mag yi mm-hmm. dana magam yee rakkam yee doomi doomi magam yee doomi càmmi ñëpp na ci moom mm-hmm. man mi jabote bi newoon ci man yëpp ñi may sonal yëpp mu jël leen yóbbu leen bàyyi ma ak sama benn goro sama benn set pour ma noppaloo parce que xale léegi xam nga ne boo nekkee mag bu wérul boo dëkkaa xale dañ lay sonal mm-hmm. loolu yëpp tegg teggin nañu ma ko ñu dem na jël seen luwaas mhm. appartement dëkk ci mhm. mel ni kër famille dëgg la appartement boobu de appartement kenn nit la su mën a jël de la kër famille la jël kër famille yore famille ñu mhm. dal famille foofu ci loxo ñëpp nekk ci moxom loxom ñii bi ma leen jur jur ba léegi ñëpp ñu ngi may dégg kenn musu leen atte man sama njaboot kenn musu leen atte commencé man ñi ma jur commencé sama wujju ñi jur doomi bàyyi suñu kër kenn mosu la ne àtte mosula am ba pare day ñëw seen papa yàlla na ko àdduna miraas moo ñu tàggale dëgg la ñu dem ci miraas bi dëgg la may ragal na ko ay waay sama doom yi dem nañu fee te man mënuma ànd ak ñoom ci appartement ndax man am naa fu ma toog dégg nga leen xalaat leen ñaanal rek yéen bi yal na ko yàlla woyofal ci seen loxo dégg nga yal na ko yàlla woyofal lu waase ba ak dund geeg lépp may ñaan rek bu dëgg bëccëg te yàlla defal ma loolu ba ñu jege ci te amul benn doom bu ma mus a teg amul amul benn bu ma mus a teg jàcc ndeysaan te du ma sax di xalaat na ndax lu ñaaw ci sama njaboot dégg